dañ na nag yoor yoor lu mu néew néew ñaari rakka lu mu bari bari juróom-ñett juróom-benn nag moom moo nekk ci digg bi daañu sib nag nga sawar ba ëppale ko juróom-ñett am na addis bu ne man salla duha rakxatayni yaqra yaqra'u fi ula alfatihata marra wa ayatal kursiyi xashra marrat wa fi thaniyati alfatiha wa qul huwa allahu ahad xashra marrat istawjaba ridwanallahi al akbar waqtaala bil jaribil awfa minal ajr ku julli ci yor yor ñaari rakk yoo xam ne rakk bu njëkk ba da nga caa jàng fatiha benn yoon kursi yu fukki yoon rakkab ñaareel ba fatiha benn yoon qul huwallahu ahad fukki yoon daldi nga yeyoo ngërëmal yàlla la gën a rëy te bu ëllëgee buñ lay nattal tuyaaba dañ lay nattale ci nattuwaay ba nga xam ne moo gën a mat bokk na ci teggin itam di rëccoo ka metitlu li nga xam ne moo la raw ci ak topp yàlla saa yoo xam ne am na topp yàlla gu la raw rek nga rëcc ko lool metitlu ko bañ ko woyofal ci sa xol ndax boo woyofalee raw gam la raw day gën di woyof ci yow rek ngay gën di bàyyi xeeti topp yàlla yi nga daan def ngir yàlla ba mujj rek tàyyeel far tax nga ñàkk la nga bëggoon réccu daal day tax la nga weesu woon te amoo ci woon tuyaaba réccu gi tax mel na defal nga ko ñu bindal la ca tuyaaba day tax it sa xol leer niki bu fekkee daana yeewu ci njël di def ay jaamu yàlla bi yoon nag mu nelaw ba far ñu noddu salaatu loola raw ko na ko mettit lu bu baax a baax su ko mettit loo rek yàlla bindal ko tuyaaba yi ku ko defoon ca na mu ko daan defee na sant yàlla ci wetit nag ndax yàlla moo ko may jàmm ba mu nelaw ak jàmm ndax yàlla mën na ko nattoo aw tiis woo xam ne du mën a nelaw sax far kon na sant yàlla boole ko mettit lu lu baax la ko raw daldi am kon tuyaaba yu bare bare bokk na ci teggin nag muy moytu lépp luy indi mujj gu ñaaw lépp luy ne day taxa ñaaw mujj daal na koy jéem a xàmme ko te di ko moytu bu baax a baax mujj gu ñaaw nag dafa am ñaari degré nee nañu mujj gu ñaaw gi gën a diis mooy deexaale kéefër ba mu tolloo ca deega am sikki sàkk ci boroomam mbaa weddi gu wér dee ci kéefër nee nañ la koy sabab mooy ñàkk woon rafet pas-pas ci lislaam maanaam na mu fase woon ci lislaam wuuteeg pas-pasu sunna ak it di dugg ci mbiri wàllu yi di ca wax loo ca warta wax yooyu yaar dana sabab nee nañu dee ci kéefër bi ci des na nga xam ni moo gën a woyof mooy ba muy dee mu dee ci mooy yàlla mbaa boog ba mu tolloo ci faatu dafa am lu mu bëggoon ci àdduna lool loole mu bëggoon nag na mu soree ca xol ba muy xëccoonteeg gëm yàlla ga nekk ca xol ba ba mel ne bëgg ga loolee ci àdduna dafa ëpp doole gëm ga ci boppam nga xam ne gëm ga des na ba tey demut sax waaye bëgg ga dara ci àdduna daal xëccoo naag moom ba ëpp ko doole loolu ba tey ñaawuk mujj la waaye moo gën a woyof ga ko jiitu ndax ka ko jiitu mooy dee ci kéefër ñaawug mujj googu nag moom la ñi xam yàlla ragal dëgg-dëgg ndax ndegam yàlla moom ak topp du ko jariñ ak mooy du ko wàññi dara waaye naka jekk ci coobareem bindoon na ne ñii àjjana rek ñii sawara rek ñi xam yàlla moom la ñuy tiit ak a jàq saa yu ne mooy xamuñu la yàlla bindoon ca bu jëkk a jëkk loola leen di jaaxal ndax ku seet ni yàlla def malaaka bind ko muy koo xam ne mënta mooy mukk mukk topp rek la man ak na mu mayewoon iblis xir ci jaamu yàlla bay ànd ak malaaka yi te teewul rek mu mujj nattoo ko digal ko mu bañ mu jaare ca sëlbu ko rëbb ko muy njiital ñay texee di fawu faw loolu ñoom buñ ko xalaatee am xel mu dal da leen di jafe nee nañu sax ba yàlla dàqee iblis jibril ak mikail dañoo jooy ndax xam ne la dal iblis ku yàlla baaxiwul rekk loola mën laa dal nee nañu ku yàlla mayoon rafetu gëm ak xir ci lu baax dëgmal yàlla biir ak bitti wan gannaaw lu bokkut ak moom biir ak bitti taxul rekk mu mën a naago ndax jamono ya dee di ñëw xol ba mën naa soppiku benn xalaat rekk bu ñaawa ñaaw mën na koo feeñu ci yooyu jamono mu jaare ca daldi ñaawug mucc nga xam ne nooga nga xam ne muy mujj génn rek moom su génnaalee xalaat bu ñaaw boobu ñu daldi àtte ni moom dal nay ñaawug mucc lépp lu ñu ne dana andi mujj gu ñaaw rek war na koy moytu saa yu ne mu misaale ko ka xubbi di duniyaa ni ki sopp jile àdduna dul istilaa yi ci noteel ga fiihaa ca moom alal xal bi ci xol ba bi la xiwaa in ci lu dul jàjju wal in kibaa bi aku këpp abadan faw xaleehaa ci àdduna du sarfi kulli himmatin ci wëlbati jëpp yitte ileeha jëm ci àdduna bil jëm hi ci dajale alal wal man hi akuk tere mooy aay rek lu mu am téye maxas tixaraaqi xalbin ànd ak labalu xol bi tëdd biiri ko ci sag doxal lil arsaaqi ñeel wërsëg ya lim njëkk wax ne dana taxa ñaawug mucc mooy bëgg àddina goo xam ne dafa daj xolam kapp kapp nga xam ne yitteem jëpp rek mooy nu amee àdduna mu ci am itam xeeb ko di séentu nag lu ci yokku fu mu toll ci xolam it mi ngi xalaat rek li mu am nu muy yokkoo ak nu muy fexee ba du wàññiku nga xam ne moom daal xir ci àdduna fees na xolam dell ba leneen xaju ca ku mel ne kooku bu demee ba toll ci faatu noonu mu bëggee woon àdduna di xëccoonteeg cosaanul gëm ga nga xam ne moo nekkoon ci xol ba nga xam ne bu yàlla dogalee cosaanul gëm ga des fa itam du te rek bëgg gi àdduna mooy ëpp doole loolu nag mooy ñaawu mujj gi nga xam ne moo gën a woyof ndax waxoon nañ ne ñaawu mujj ga gën a diis mooy dee ci kéefër wa minhu bokk na ci li sabab ñaawuk mucc is raarul fata nuuruk camsa xalaa zunubin ci ay bakkaar wa bidhatin ak bidaa maxa nifaaqin ànd akuk naafiq wa uyubin ak i sikk ba tey bokk na ci sabab muj gu ñaaw sëgg ci ay bakkaar rekk bañ a tuub deltu gannaaw loolu moom ku ko def ba dee fekk ko ca mën naam sax mu deexaale kéefër ndax mooy yàlla buñ ko tuubal rek xanaa sax ca di yooyu mën naa andi ak kéefër ba tey topp bidaa bañ a nekk ci sunna ci pas-pas ak jëf dana di indi mujj gu ñaaw bari sikki bakkan yi ñu waxoon ca gannaaw akuk naafiq yooyu yëpp mën naa indi mujj gu ñaaw naafiq gi mu wax sax jubluwu ci naafiqu di feeñal gëm te fekk na kéefar nekk ci moom kooku dañ ko jëlali waaye naafiq gi kay mooy ab jullit la waaye amee na wenn melo mbaa ay melo ci melo yi nga xam ne naafiq moo koy amee ndax nit mën na di ab jullit te teewu ko nekkub naafiq ndax addis ba nee na aayatul munaafiqi talaat ida xaddasa kadab wa ida tumina xaan wa ida waada axlaf màndargam ku naafiq mooy yett yii su dee wax du ca seet dëgg du bañ a wax lu amut day wéy di wax lu amut ca la muy wax suñu ko wóoloo du sàmm kóolute ga day wor kóolute ga soppandiku ca noo xam ne yoon daroon aaye ku ko soppandikoo ci luñ la wóolu ak nag dalay dële loo xam ne mën na ko fàttiwu ko ba noppi nag war dëxal ba bañ koo matal xamees na dële ba noppi fàtte ba gannaaw ba nga tële koo jéggalu waaye dële loo xam ne mën na ko fàttiwu ko ba noppi nag wor yett yi màndargay naafiq la bokk na ci ak naafiq muy feeñal ci kaw lu bokkut ak lam na bu ca biir wala muy wax ci làmmiñam lu bokkut ak lam fas ca xolam yooyu yëpp xeeti naafiq la kon jullit bi di ab jullit te teewu koo nekk ab naafiq lu mën a am la loolu nag war na koo moyu ndax naafiq googu dana waral mujj gu ñaaw wa minhu bokk na ci yi sabab mujj gu ñaaw ku nekkal dal isqa it boromuk déglu ilee jëm ci man waqiixatun ak dugg dugg gu aay fii ci anil awliyaay ci mbirum waliya wa mitluha am kemam la takzibuhum seenuk fenloo mooy seenuk weddi fii maa ca la nga xam ne ek tatama nëbb na fiihim ci seen biir minal asraari ci ay secret min muulin ni ami bàyyi ko ci aji méngale xéwal ya mooy yàlla bokk na ci taxa ñaawug mucc di wax ci wàllu yi loo ci warta wax mbaa ngay weddi ne wàllu yu amut mbaa boog di weddi nga leen yàlla defal ci xeeti karaama ak xeeti xarbaax ak xeeti secret yoo xam da ko soob mu def ko ci ñoom wax ci wàllu yu loo wërta wax ci moom ak di ko dingata ka weddi dana sabab mujj gu ñaaw nee nañu kuy dugg ci mbiri wàllu yu di ci wax loo ci warta wax mbaa nga di ko weddi faaw yàlla dalay natoo xol bu dee te lay tax xol ba dee mooy pas-pasam day yàqu ndax addis bi day wax ne suñ boroom nee na ku noonoon teeg sama xeej ji mbaa boog ku lor sama xeej ji yëgal naa ko ne ko maa ngi ci sa kaw man ngay xeexal man ngay bëreel xultu wax naa ne falaa yunkiru du weddi sha'nahum seen mbir abadan mukk illaa baliidu ndari aji gàtt xel aw fatinun wala aji xellu du xasadin kuy boroom kañaan ne ma ne koo gis muy weddi mbirum wàll yu daal benn muy ku gàtt gàtt xel xamut lan moo di ak wilaaya nit nag lu mu xamut mën na koo weddi mbaa mu nekk koo xam ne ku yeewu la waaye nag añaan jàpp na ko ba faaw mu weddi rek la yàlla defal wàll yi kon nag benn ak gàtt xel ñàkk xam mbaa boog xam ba noppi kañaan yooyu yaar mooy waral weddi waliyu fa kayfa yunkaru naka la dee fi weddee ëllës yi ka nga xam ne xadin xataxa dogu na minal waraa bàyyi mbindee fi lii dil waraa jëm ci borom mbindee fi maaxal waraa yi ànd akuk sàmm koo xam ne nee na daa bàyyi lépp lu dul yàlla féeteeg yàlla kese lu dul yàlla soxalu ko lu bokkute yàlla amul ci moom ab cër kooku mooy wàllu yu kooku nag nee na xawma nu ñu koy weddee ak a diingat aw kay fayoon këru wala naka la def weddee àllës yi ka nga xam ne ittaqa ragal na al ilaha buur bi xaqa tuqaatihi dëgg-dëggi ak ragalam waxaala fa te mu jiyoonteeg xawaahu bànneexam wal yi day doon koo xam ne day ragal yàlla dëgg-dëggi ragal ga mooy na yàlla bëggi ku ko na ragale day soreenteeg bànneexu bakkanam la yàlla gërëm rek moo koy neex leneen du ko neex ku mel noonu nag nee na nuñ koy weddee ka dingat daal xawma ko aw kay fa yux xaru wala naka la dee fi xeewe ëllës yi ka nga xam ne tawallaa méngoona mbaa féetewoona umoo raxoo ay mbiram rabbul baraaya borom mbindeef yi jàll màgg na wattarada te mu dàq xan wëys ko fadlan ngir ngëneel a seytaana seytaane wa kaf fa te mu fekk xan wëlis ko alxawfa ragal wal ahzaana ak njàqare wa mallaka te mu moomal ko an nafsa bakkan ba walam yusallitan te xiirtalut iyaaha moom bakkan ba xale ci kawam fanaa aate mu sorenteeg al xalata njuumte mukaashifan mbir mu ñu aji wuññal maanaam mbir mu ñu aji muril laxoo ñeel ko mu xaddaraati xoloomihi yañu suturaali xam-xamam wa kulli sirrin ak bépp secret yaati boobu dana dikk yaati nag mooy nekk ci way wi mu ne wal yu day doon koo xam ne day soob yàlla mu tànn ko ca démb féetewoo ay mbiram nag bi mu ñëwee fii ci àdduna seytaane bi nga xam ne moo mën a yàqal ab jaam yàlla dàqal ko ko ba du ko yàqal dal koy tàggaleeg lu nuru njàqare akuk ragal may ko mu moom bakkanam def bakkanam mu mokk rumbax du may bakkanam mu yàqal ko dara dara ndax moo ko ko tàggatal ba nga xamee ne moom bakkan bi ci lu baax rekk lay jëm mu soob yàlla itam xam-xam yu làqu ya ak secret yu nëbb ya ci coobareem mu wan ko ko muril ko ko ba mu gis ko ku mel nii daal mooy waliyu ku mel nii nag nee na xawma naka lañ koy xeebe rawante na di ko weddee ka diingat kalaamuhum seen wax daal ida dahaaka ndeem jommal na la yaa bali dañu aji gàtt xel foqul waxal rek kama qaala naka waxe woon ak dëkk yi aji ñaw ja abdul wadoodi te mooy abdul wadoot dane wan lëstu déet man af xamu may dégg maanaam may mën a xam kalaamal awliyaay waxi wàlliya li ànd ni ngir naka man anaa mën a anaa mën a maanaam daal nitu kese laa waxum te ñoom xumoo ñooma maanaam ñoom daal ay niti yàlla lañu ne bu wàll yi waxee te la mu wax jaaxal la xamoo ko bul ko weddi da nga cay maandu wax na nga xam ne moom la Abdul Wadood waxe woon dane woon waxi wàlli yi man mën naa koo bañ a xam ndax bokkuma ak ñoom fu ñu nekk man Abdul Wadood nitu kese dong laa ñoom nag ay niti yàlla lañu kon nag mën na maa bañ a xam seeni wax mu ne kon nag bool yi waxee te wax ji jaaxal la wax rekk loolu Abdul Wadood waxoon te maandu ja qultu wax naa ne waxad yu xaalifu amaana bu dana juyoog albaadu lenn ci wàllu yi li zaahiri sharhi ñeel zaahiras yoon ibtilaa ngir nattu nit ci kese yi fay baaxu te koy bañ almala mbooloo ma ne ma ne am na ci ñenn ci wàllu yi ñoo xam ne daañu def lu nuru xëttu sharia boo ko dee xool ci zahir da fekk na ci baatin moom xëttuñu sharia waaye dañoo bëgg a nattu niti kese yi ba xam daañu leen dingataka weddi wala déet su ko defee nag ña nga xam ne zahir rek lañu xam bu ñu gaawtoo daldi weddi fekk na seenu gaawtoo rek waaye bu ñu xamoon ca biir bu ñu weddi qaala wax na muhammadul xalaawi muhammad al xalaawi annaa bi xatu may aji tépp alayhi yàlla doole nekk ci moom niamatul latifi xéewaluk yàlla mi aji ñëwante assaabiratu xéewal gay aji jot ne waman taxar rada kuy gaaral li chi'ril awliya ñeel wayu waliya bi naxwi ci naxu wal xaroodi ak xarood buliya ko natoof ko xatxan ci du dokk muhammad alxalaawi muy ko yàlla may na may te yàlla yàlla dooli xéewal yaag may ya waxal na ne kuy seet way waliyu di xool ba xam naxu ba jub na ak xarood ba nu mu demee ndax bëgg rek boo ci gisee dara nga dingat ne ah lii kat nangam ak nangam kooku day nee na faaw yàlla teg ko nattu fal i'tiqaadu rafetuk pas-pas fii moo ci ñoom wilaayatun ak wilaaya la wal intiqaadu gëstu sikk min humoo ci ñoom jinaayatun tooñaange la nit ñu baax ñooñu nee na rafet ñoom pas-pas daanaka ak wilaaya la ndax boo rafetee ñoom pas-pas bëgg leen te yàlla tax daldi am ci seen wilaaya ga ab cër ndax almaru maaman ahabba nit ku ne gëm bëgg rekk lañ koy booleel moom lay àndal mu ne nag jekki di gëstu sikk ci ñoom di leen dingataka wax dara ci ñoom daal tooñ sa bopp la te mënees na caa jaare yàqule xultu wax naa ne wa xisatu muridi cheikhina xisab taalibab sunu sëriñ ba fii junnatil muridi ci junnatil murid tashhadu dana seere lanaa ñeelno ku jàng junnatul murid gis taalibe boobee fam jaar ak sunu sëriñ boobee da nga xam ne lii ma wax mooy dëgg mooy wàllu yi rafet ñoom pas-pas ak wilaaya la waaye nag di gëstu sikk ci ñoom tooñ sa bopp la fa man araada ku bëgg ilma qadril awliya xam darajay wàllu ya inda ilaahil xarsi fa boru aras fal yaqtaf yan naxañtu aathaarahum seeni saawo fii jidwatil anwaar yi ci téere bi ñu tudde jidwatul anwaar giliñ tug ay leer jiswatu ma matt gu rëy bu ñu taal muy jëf-jëfi ca cat la fi dëb bi ca aarga xan manasibil axyaari walis daraja yi tànneef ya li sa yi di ñeel sama sang almuxtaari te mooy almuxtaar dil asraari kay borom secret ya alayhi yàlla na doole nekk ci moom ridwaanul ilaahi ngërëmal buur ba albaari kay aji bind ne ku bëgg xam darajay wàllu yi na mu toll fa yàlla am na téere bu sidi muxtaar taalif tudde ko jizwatul anwaar fi zabbi xan manasibil axyaar téere boobu nee na boo ko jàngee da nga xam ni nga xam ni moom la wàllu yi màgge fa seen boroom ak fa mu leen teg lakinnama maarifatul wali yi waaye nag xam wali yu asxabu moo gën a jafe min maarifatil ali yi ci xam yàlla mi aji kawe li annahu ngir naka moom yàlla jàll màgg na kamaaluhu matam ga zahara feeñ na bila xafaa in ci ludul ak nëbbu xinda kulli man fa képp koo xam ne nadara setantal na amal waliyu daal waliyu nag fa huwa moom dukkti taamin boroomuk nëbbu la min xaytuma yekkoonu ci fu mën di nekk fil anaami ci biir mbindeef yi li ak liggéey ngirug lekkam washur bi akuk naanam maxal war a ànd ak mbindeef yi waxayri zayni ak lu bokk te yile yaar wayu laax yi te muy taseeg dararan lor mu ne nag xam yàlla kat moo gën a yomb xam waliyu ndax yàlla day ku mat koo xam ne lim sàkk lim yi bari bari la ca tuuti ak la ca rëy ñoo yemoo loo ci setantal rek xame ca yàlla akuk matam akuk ñàkk moroomam wal yi nag moom day mel ne nit ñi di lekk ak a naan di jariñoo ko loru di metit loo ko naqarloo ko dëgg ko tàllee ko ñàkk a tàlli moom daal li ngay gisee nit kese yi rek yu bare bari dajay mel ne ñoom loolu moo tax nag xàmmee ko yombewul noona xam yàlla moo gën a yomb xàmmee waliyu xaraa isun kem ay siet lañu fii xidri dil jalaali ci pabio borom màgg ga fa laysa yadrihim du leen mën a xam siwal ashkaali ndare ña leen yelloo xam mel ne waliyu ci boppam xam moroomum waliyoom dañoo mel ne ay séet yoo xam ne dañ leen a waajal ba ñu jekk def leen ci biir pabiob yàlla seen boroom nga xam ne nga xam ne yàlla mi leen may may gu rëy googu moo leen di xam ak nag koo xam ne yelloo na leen a xam ci jaamam ñi ne ki wal yu ci boppam xàmmee ay moroomi wal yoom wal kullu képp min humoo ci ñoom lëxoo ñeel na ko nuuraani yaari leer kama nassa ni ki yaxale bii ci moom dawal xirfaani waroom xam nga ay limu ci namm nuuru jalbin leeruk ñoddi yajlubu kook dana ñoddi almaraxooma ka yàlla na réeram wa nuuru salbin ak leeruk dàq yatrudu kook dana dàq almaxrooma ka yàlla nara xañ yërmaande ne wal yi woo gis nag yàlla defal na ko yaari leer leeruk yërmaande goo xam ne mooy xëcc ñu yàlla nara yërëm bu ëllëgee ñu ñëw rafet ci moom pas-pas ànd ak moom te yàlla tax ak leer goo xam ne day dàqe nga xam ne ku yàlla narul ci moom yërmaande nar koo xañ yërmaande bu ëllëgee leer googu moo koy dàq mu tàmbalee weddi waliyo di gëstu ay sikkam ak di wax sikki ña nga xam ne ñoo ànd ak moom lu mën ci du wedd ak yàq rek nekk ca fekk yàlla ci boppam moo ko nar xañ yërmaande tax nag leeruk waliyoowu sëlbu ko dàq ko nag ba mu yàqoo noonu ndegam yàlla naka jekk moo rëddoon ne ñii dañuy dem àjjana ñii dañuy dem sawara looloo tax wal itam lu mu baax baax du tax ñépp wuy si ko jaruñu ci moom ñu yàlla namoon ca ñoom texe ñoom rekk ñooy ñëw ci waliyu wa waaye ñu yàlla namutoon ci ñoom texe dañu koy wan gannaaw duñu ñëw fa kullu man képp koo xam ne saddaqahum dëggalal na leen fil xaali ci saasay saasa fa duntifaaxin boroomuk jariñu lay doon bi nawaali waali ci may kilifa ga laakinnama inkaaruhum waaye nag seen gu weddi lay sa jësaa déet pay lëxoo di ko ñeel si war raddaa ndari alkande faraaxi na nga sàmmoonteeg ar rajasa wili rajas waali yu yooyu day nee na ku leen teel a nangul fa saasay saasa rek dangay daal di am may yàlla jariñu ca waaye nag jekkit leen wedd moom alkande rekk lay jur kon na nga moytoo weddi wenn waliyu tumma la man na topp na nga xam ne ann sha'nal awliya naka mbiri waliya muxtalifun aji wuute la jiddan lool ka sha'nil ambiya niki mbirum yonante ya mu ne nag li nga xam ne moom la mbiri yonante yi wuutee noonu la mbiri wàll yi wuutee fa min humoo bokk na ci ñoom wàll yi man koo xam ne laata biinu du bir maanaam du feeñ abadan mukk la ñeel ko